يا ولي من زادها الفجار إلى الجنان العمر لن وجارا يا ولي من زهزها الفجار إلى الجنان العمر لن وجارا إن ابن عبد الله قد لم يرد في الخلق مثله ولا فيهم يرد براءة المختار في الأخلاق يغتسل بها هدى القلاق صلاة ربي بسلام السمد على وسيلتي له محمد فكفت يا واسع يا مريحي سجني وكنت لي بتسريحي رديت عني ورضيت عنك يا من إلي جاء جميل منك أورثني مواهب القياس يا من ثبت دور في قياسي لك توجهت بشكر صدرا منك إليك مطمحوت الكدرا خدمة خير الناس بالجناس وغيري بك مهد أدناسي رد الذي أمجهتي في الأذل من المكاره لقدني من عذل رد الذي أم جهادي في الأذل من المكاره لقدني من عذل إلى من غير انتهاء قدام مسرة وبالمنال جتا دفتني سرا نفى الفجارا إلى سواي محرما من جارا جذبتني سر النبل فجارا إلى سواي محرما من جارا والجزاء والثواب والأجر وما بتعبه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 xafidahum allahu taala wa raahum kaddu yi nag bi ci jiitu mooy sant yàlla bii nu yàlla mayee wér ak man tal ba ñu mën a jooxe ndigal li nga xam ne ci la ñu bàyyi ko démb muy matug weeru koor yàlla bu mu nekk suñu wutu koor lañ jot a def lépp mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu te dencoon na ko fu yàq bu yekk sëriñ baa ngi nuy ndokkeel di ñu dénk nag ay kàddu di nu xamal ne yëggutoo mu ngi doon séentu weeru koor mi ngi nii duñu tàgg la muy tegtale nag mooy lu nuyoo rek tàggoon lépp loo séen bopp ba léegi tey cat la romb la su dee loo xam ne mën nga ca yóbbante na nga gaaw ndax du nekk la muy tegtale it ba tey mooy wane ne am na weer wu mat sëkk woo xam ne yées na ci sunu dund bis ni ki tey nañu fexe ba gan googu fi ñëwoon di weeru koor gan moom mënees na ko tere lu nekk ba mu des dem nettali lam fa fekk buy nettali yàlla nañu nettali lépp di lu yiw yonent bi nag sallallahu alayhi moo daan ñaan bu weeru koor di dem naan allahuma la tajalhu axira iyaa fa in jaaltahu fajal ni marxuman wala tajal wala marxuma mooy yàlla bu doon suñu mujj koor ñi nga xam ne yàlla dogal na li muy dogal ci ñoom ba noppi yërëm te ñun ñi fi desandi yàlla bu ñu xañ yoolu weeru koor bi kàddu ñaareel gi dénkaane Cheikh Mahamadul Fadal la woon daana wax ci làmmiñu boppam ba yàgg waxukaay ñëw mu di ko ca waxlu muy ñett muy ñu maase ci tuub di sàkk sarax tey balonte xaq tuub nag su weeru koor jàllee nga xam ne lay dem dem na kenn ku ne xam na boppam na kuwaat ca ñama ko war a wax xam ne ndigalu suñu borom moo fa nekkoon waaye ndigalu suñu borom day wéy ni weeru koor yu wéyee kon boog tuub suñu borom moo ko santaane ci alquran tuubu ilallahi tawbatan nasuha wa tuubu ilallahi jamian ayyuha almuminuuna laallakum tuflixuun mooy nit ki xoolaat gannaawam la ko ca wóor ne mënoon naa gën a jàkk mu fas yéene rëcc ko te du ca tegaat moom yàlla ni ko yàlla jàppandalal bu kenn def loo xam ne nag ci ay rëcc-rëcc moo xam mu jublu ko ca wala jubluwu ko ca ba defee ne yàlla du ko jéggal ahakay ku tuub yàlla jéggal ko qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha dunuba jamian innahu suñu borom mi ngi ñuy wax ci alquran ne ku jot ci bataaxalu yonent bi ne yàllaa ko yónni na ko gëm te di dimbale ku war a dimbale ndax lii ñuy ñuy dimbale ñi ñu war a dimbale kat suñu leen ci dimbale wutit ëllëg si bi dañ koy saam seddale ko suñ ko naaw aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma jaalakum fii falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir dellu wax ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla gëm gu wér dee leen dimbale ñi ngeen war a dimbale ci seen teyu bakkan balaa bëy di koy mbuus yaa ayuha alladina amanu anfiqu min tayibati ma kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ard anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bayun fihi wala xullatun wala shafaa kon boog sàkk sarax sarax yaatu na dem na ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa dem na ba ci lii nit kiy joxe sax waa këram di ko dunde mën na caa am yoolub joxe as yoolub saraxe ba ca dolliku te moom lay jeexale mooy baloonte xaq baloonte xaq suñu boroom nee na ku bëgg ñu di ko baal nay bale <clears throat> <clears throat> fal wal yaafu wal yasfaxu alaa tuxibuuna an yaxfira allahu lakum fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah kon boog kenn ku ci nekk na xool moroomam bu fekkee jege na ko ne ko jàbb loxo te mu dëggu ci moom mu ne ko baal ma bu fekkee xam na ko ak bu ko xamut lépp ndax mën naa juum wax ci ab deram loo xam ne koo ko yëgu ko te yàlla dara du rëcc ci moom yàlla noonu yàlla boole jéggal sëriñ bi nag nee na fi mu koy tëje mooy mu ngi ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom. may ko ak wér te yàggal ko fi te àggaleel ko naalam yépp te saa bu geesoo nag gis ñu ci gannaawam sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ñu ñaanal ko sëriñ Abou Baraka moom Cheikh Mahmoudou Fadal mi nga xam ne ci ay kàddoom lay waxe moom it suñu borom bàyyi ko fi ba àggaleel ko ay naalam te ñu ñëpp ñu dab ci ginnaawam di ñaan mbooloo mi yëpp itam ñu ñaanal suñu Abdou Fatah mii nga xam ne moo fi toog suñu borom yàggal ko fi ba mu yàgg fee nekkal sëriñ bi moom mbooleem bokkam yi nga xam ne ñoom la fi dàndal di ñaanal jullit yëpp ci réew mi ak bitim réew suñu borom dolli jàmm ji te def naataange ci réew mi te nawet bi nga xam ne moom la ñuy jubit sëriñ bi nee na mi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu doon nawet bu teel bu barkeel teñ muurloo ko ak mbooleem liggéey bu nit mën a def gannaaw bu jige ci julli gi suñu borom defal ko ca barke ak yaatal ba kum ca bëgg dimbale dimbali mu la caa dimbali. di ñaan jàmm ci réew mi bu baax a baax a baax a baax am na fi waaye ne ko yàlla gën a dolli di koo ñaan itam fépp fu ab jullit nekk ak fépp fu doomu aadama nekk. di fàttaliku ci ñaan itam bu baax a baax a baax suñu bokk yi nga xam ne dañu fee bokkoon ñoom ñoom nekk daaw te seen yaafus yóbbuwu leen sëriñ bi nee na na ñëpp ñaan kenn ku nekk xam-xam ak ba xamut suñu borom dool yërmande ci ñoom. ndax kat am na si ñooñ fii la ñu bokkoon ak ñun nekk daaw wala feneen fekke bisu tey te fekke wuñ ko ren ñun ñii fi des nag du suñu njàmbaar du suñu ñawte mbaax suñu boroom la yàlla nañu ko fekke déwén te mu ànd ak dal ak sago te suñu kilifa yit suñu borom bàyyi leen fi ndax ñu yomb àndal lañ yomb nañoo ànd àndal ni ko wolof di tënk rek dalu leen àndub mbët ak i bokkam nee nañ mbët ci wax wolof na topp ña wax nag ku jaar ci kanamam mu ne yaa ngi sama gunóor yi soo nekkee ci pegg mu ne danga maa def moroom soo dee dox ci ginnaaw mu ne danga am fa may jokki loolu lalu leen yàlla yàlla yàggal ci njaboot gi ci kanam njaboot gi te yàggal njaboot gi seen gannaaw kàddu yooyu la sëñ bi waxoon ko Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah kullu aam wa antum bi